ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na salaamaaleykum ami internaute salaamaaleykum ami téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen char tey ñi ngi samedi le 19 juin ñi ngi fi arène nationale arène nationale bu ngeen ko déggee ngeen xamante ni combat bi nga xamante ni moo war a dox diggante Franc Franc ak Tyson 2 waaye balaa boobu am na combat yoo xamante ni moo ci war a toftalu incha allahu rabbi lépp loo xamante ni information lañ leen ko jox ndax làmb mooy sunu cosaan comme ni ko Babacar di waxee sama mag jooju sport de chez waaye moo du xulle ba tey usu ak seq war naa tase ki nga xamante ni moo di Yakham Petit Avignon ak Diamalaye euh, Ndiaye Dos ak Hamza Boy euh, Madi ak Sakal 2 Hippo Faga 2 Trompeur boîte vocale Fourrière Baye Mandione Junior caatu ngeewal alliance biram nee naa la combat boobu moomu ci gën a neex waaye ki nga xamante ni moo di Franc ak Tyson 2 moo di xule sama caméraman topp ma lépp luy info ñu daal xule xoolal ma raag googu affaire bi alliance la alliance biram la a na bi nga gis noonu mi ngi dem yaa ngi gis góor ak jigéen mag ndaw ñoom ñëpp le 19 juin arène nationale waaye Modou li may gis mooy ay jeunes yu déterminé ay jeunes yu nga xamante ni dañu ñëw ci làmbu place ñi sol seen i t-shirt mu rafet lool Modou Khoule nga gis ni xale yi léegi conscient nañ xale yi ñëw ni stade xale yaa ngi noonu ñëw stade Khoule ak ambiance bu neex Khoule nee naa la c'est ça l'espoir c'est ça l'espoir la jeunesse xale ak mag yemuñu mhm. doole yemul xale ak mag yemuñu da nga jàpp ne tey Tyson doole xale doole mag yemuñu mhm. xale buy compétition sax dama ak xaar lamb bokkuñu mhm. amul xalaat jàpp rek daan lu ñu sax xalaat lay jeexe wala ci dóor amul xalaat jàpp daan koy dóor mu wàcc lu mu def rek koy daan ah. lu mu def amul xalaat lu mu def dañ koy daan mm. amul xalaat an dañoo ñëw ñu stade bi ñoo feesalagul bi de gaay yi kaa ci ginnaaw gaay yi ñëw ñun PA lañ dëkk amul lu ñuy tiit amul lu ñuy ragal barki Serigne Touba ñun PA lañ gëm ñu dañoo wóolu suñu bopp. non non mu dul barki Serigne Njaago Paar xoolal xoolal côté bi côté bi côté bi côté bi côté bi ku ñëw kii moo la mën. agenda dañ ko door mu daanu. dañ ko door mu daanu xoolal avant day xaar. barki yàlla ñoo a pare fu yéen waa Pikine ay ragal ngeen yéen waa Pikine dañoo wax jee fi nekk barki nel ama na def nank la am mais ama mo loo waxaguñ ko mais mais mais Franc Tyson 2 bi lan ngeen indi yéen tey kon ah kon ñu ngi si kaw tribune yi xale yaa ngi yuuxu Tyson 2 mel ni ki a gis nii dafa ñëw ak confiance mu mel ni ki ma gis nii dafa ñëw waa Ndayane yëpp ko waaye waa Pikine tamit yëpp ko ñu gis open press bi nga xamante ni moom la def keroog am na seen daal di ñëw ñu daal di yëngal Ndayane mais kilifa gis siyaat naa la tey naka ngeen indee Tyson 2. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñëwee nañ ko indi nañ comme niñ ko doon indee. tey ku Pape Sarr dekk sa wet rek. Uh-huh. waratoo am dara looy tiit. kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ndam parce que tey lii du guleet dañoo dugg parcelle daan fa ñetti mbër ñu ngi ñaan tey yàlla nañu yàlla may ndam Tyson 2 gis noonu Tyson 2 la gis noonu Tyson 2 la ñu gis waaye Franc il m'inspire confiance Franc bi ma gis Franc bi ma gis confiance indaale Modou Modou Franc ngi noonu am na lu ñu koy sottil ci loxo yi Modou Franc bi ma gis confiance indaale Modou ki ma gis nii mu ñëw Modou li ma gis lépp ci nga xamante ni moo di xar fa xuufa ma ngay sotteekoo benn bouteille kiran bu am ay saafara ci biir euh, mais Tyson 2 Tyson 2 Tyson 2 ngi noonu Tyson 2 ngi njuuk mais mbër looy di tay mbër non sant yàlla rek dañuy ñaan yàlla may nu victoire rek waaw. Gomis Gomis Tyson 2 bi ma gis dafa ñëw ak confiance dafa ñëw ak forme Gomis. fii Gomis Gomis li ma gis nii c'est de l'ambiance Gomis dara lu ñuy ragal Franc lañ wax wax dalu sa ci jaabala jaabala jaabala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 ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188